ay ca ayca ayca ayca ayca na téléspectateurs yi dugg léegi moom du Ndiaye nga taxaw en même temps mhm. et puis dinaa maye dinaa maye ay xasida personnalisé ah. xam nga màggal gii di ñëw uh-huh. yaa ngi fàttaliku koor gi dama doon maye ay coffret ak ay kaamil yoo xamante ni quartier général lañ ci lañ ci bind macha allah xadi euh, al bamba waaw naaru cheikh bamba yaayu cheikh bamba naaru al bamba yaayu cheikh bamba uh-huh. euh, dafay defar ay xasida personnalisé mhm. imaginez le Mouayibou ak xasida Serigne Touba yëpp ñu defal la ko ci coffret bindal la ci Mamadou njaay mu awa bàyyi faat kinne defal ma loolu wala daaneel naa ko. na ma defal loolu. ndeke ñëpp bëgg dégg lu baax. ah c'est incroyable. aadama yëpp bëgg ñu leen di wax lu baax. mais sénégalais <laughs> ah, coffre bi ñu bind ci Mamadou njaay uh-huh. naaru maire Touré. ah. ah <laughs> xol bi sedd na daal sax. coffret coffret personnalisé ñu bind ci Pape Samba Thiam bu Aïda Ndiaye <laughs> donc j'offre ces coffrets là xam naa naa wane naa wane image yi ci ci ci kanam euh, ñu jël beneen euh, téléspectateur 88 628 65 cinq mais wax ma li xew biir internet en même temps Mamadou Ndiaye. dafa mel ne am na ku ne allo de. am na ku ne allo. oui ayca kon ñu jël ko allo. ayca allo oui. kooku. man sëñ Fallou na nga def waay. maa ngi sant bu baax. leer na ma ni Paul nga tudd tudd man nga bëgg a nax rek tuddee sa bopp sëñ Fallou xam naa. yàlla yàlla ma ni Paul nga tudd. <laughs> Paul seet. <laughs> billaay sëñ Fallou laa <laughs> a naxe Serigne Fallou rek mais amul problème. billaay noonu laa tudd. jox naa la sa addiya turandoo cinquante mille. allez merci mooy sa mooy sa paasu màggal dégg nga Fallou. allez merci. Fallou nan nga tudd. Fallou Diop. Fallou. Diop ah, d'accord merci Paul Diop. waaw <laughs> merci beaucoup. donc maa ngi la ko yónnee nii ci sa téléphone portable bu amaatee beneen euh, téléspectateur ñu jël ko dégg naa équipe bu Tata Mia ñu ngi préparé wu dans quelques instants ñoom tam pour àggali. Uh-huh. Evatra Mami Diop. Euh, ci wareef itam dañuy joxe ay paasu màggal. Mhm. même bu fekkee waxtaan yeeg thème yi am na solo ku woote euh, boo participer ci thème bi di nga am cinquante mille donc damay joxe waat yeneen i cinquante mille ci numéro de téléphone yi ñu may téléspectateurs yi dugg nga wax ma li xew biir internet. du yàgg sax ñu ngi ci lancement wu màggal gi rek ci mouvement su màggal gi lañu nekk safar gi. sànq yaa ngi gis vidéo euh, Baye Cheikh. Baye Cheikh waaw mi def mi def mi def buzz ci TikTok bi. ah oui actuellement waajtaay gi. Uh-huh. ñëpp a ngi koy moom uh-huh. sénégalais dañ ko bëgg gis naa ko ci réseau yi vraiment gars yi dañ koy support bu baax a baax. Hmm. Euh, ci euh, farlu gi mais surtout ni muy bëggalee sénégalais yi gis naa vidéo yi bokk na ci vidéo yi nga xamante ni actuellement bokk na ci li xew ci euh, internet bi je pense mën nañ ko seetaan vite fee ñëwaat. safar gi safar <laughs> safar gi la euh, sénégalais actuellement créé nañ ko hashtag fi mu ne ñëpp ci waajtaay gi safar gi. fi mu ne nii murit yi yëpp nee nañ pare nañu. non amul murit yi ñëpp kay. fi ne Sénégal gi yëpp. man commencé naa sama compte à rebours depuis premier jour. waaw ñu ngi ci quatrième. fi mu ne maa ngi 4 jëm 18. oui ñu ngi 4 jëm jëm 18. ku nekk ak sa bés. ku nekk ak sa bés. ay Pape Samba daf ma bëgg a rey waay <laughs> nga maa bëgg a rey waay. acca oh Pape Samba xanaa da maa bëgg <laughs> ñu ci safar gi xanaa daf maa bëgg a rëy oh na kaay moom mat na xalifa de ayam gi dafa neex de macha allah yàlla na fi yàgg te ànd ak wér macha allah Pape Samba xanaa da nga maa bëgg a rëy léegi mu teg beneen Pape Samba daf ma bëgg a rëy su bëgg a rey ba ma dee tey léegi mu changé photo bi tegaat Serigne Mountakha mais beneen photo pour ñu gën a barkeelu. ci waajtaayu màggal gi ah kon bu góoma dee. <laughs> waajtaay bi élage mu ngoog euh, action citoyenne yi xam nga ni fi nii daal <laughs> sénégalais yi ku nekk jàppal ma jàpp ji ku nekk di daje rek def mm. ay action citoyenne ngir gën a mën a waaj waaye lii ci euh, mën nañu wax ni dinañ ko fa xaar mm. ren ci euh, màggal gi daan na am mais yii waa SONAGED ñu ngi ci nekk di ci góorgóorlu fa mu nekk ay poubelles yoo xam ne day mobile maanaam di leen ko mën a puus ñu teg ko ci eh, barab yi nga xamante ni salte daal bëgguñu mu am foofu wala muusu ndox yeeg yu ni mel pour lépp mën a yemm ni ñu mën a màggal ci jàmm voilà te ñëpp nekk ay citoyen waaw ñëpp te ni Pape Jean moom bu yeggee Touba day sàcc yi seen kër def ci ay glace ak ndawal <laughs> am nañu fit bi dëgg la mbalit la non baax na day leen ci sànni yi uh-huh. voilà te bañ koo sàcc loolu am na solo wala wekki ruu yi. Mhm. def ko pièce détachée jaay ko. Mhm. am na am fit bi. am na am na solo. Euh, Malick Thiandoum suñu Malick léegi laa jot message am. lu ko dal mi ngi mi ngi collecté moom El Hadj Malick nga dëgg Malick day safar. dajale ba pare da koy fas yéene yóbbu fële ca prison bu euh, Thiès. tu sais que daf ko yàgg def. waaw daf ko yàgg def. daf ko yàgg def. mais lu am solo la. vraiment ah initiative bu am solo. barkeelu bu am solo. lu waaye am boo ko ko yónnee. Uh-huh. day jël lépp dem safar ak euh, ñi nekk ci prison bu cees voilà loolu loolu loolu vraiment am na am na solo waaye am na ci ñeneen ñi nga xamante ne ñu ci waa waaru safar gi. Hmm. ñoom tamit ñi ngi ci. Eh, nekk ci liggéey dajale loo xamante ni dañ koy def ngir eh, gën a mën a góor góorlu gën a mën a waaj surtout rawatina ci week-end yi ñu jëm. Mm-hmm. ngir gën a mën a jàpp ci safar gi loolu am na am na solo waaye bu ñëwee ci actualité yi El Hadj eh, BRT bi sànq maa ngi koy wax. Mm-hmm. actuellement boo duggee WhatsApp Facebook Instagram moom la ñëpp di partager lii mbégte la fi mu ne nii bokk na ci vidéo yi sénégalais yëpp di partager ñu seetaan ko ñëwaat. Come abi dañu waroon arrêté ñu dugg ci nag ñu. ndax dañu wàcc dañu wàcc. dañu wàcc dem dugg ci oh. yow mu jaar ba Sow ñu convocation bi. maa kii. ah. ah. ba pare tey ci suba dem naa bay gaare fii de. li nga xamante ne mooy bus BRT gis ngeen ko yemm na waaye lii vidéo yi ci subaak léegi moom la sénégalais yi di partagé pendant ce temps ci Abidjan ñoom ñu seen pont la nekk waaye influenceurs yi fi mu ne nii ñu ngi ci créer lu ne actuellement bu duggee TikTok ñoom ngay gis Facebook ñoom ngay gis Instagram Abidjan nag boo nee Abidjan ne Côte d'Ivoire Ivoiriens yi ñoom ils sont très présents sur les réseaux sociaux actuellement seen pont bi ña nga ca pont Alassane a <laughs> damaa sonn ci pont Abidjané yi <laughs> yëpp góor treize villes. mais seen influenceurs yi ñu ngi ciy waxee nu ne. mais am na nag ay mature yoo xamante ne fi ñu ngi kaas ñu ngi naan leen. non non ah, oh laisse-moi ces gens là oh laisse ces genre mature yooyu lu ñu ma soofee costume mooy vous savez ah c'est qui Mame Ndiaye Savon guddi gi dañuy fantôme dañ ñu ngi ci réseau yëpp. ay pseudo lañu am. mais di seetaan statut yi bu ñu xëyee xool woote maturité man non non bu leen def loolu pourquoi yéen fi ngeen dem ba ci. je connais ce pays c'est c'est c'est ce continent xaw ma ce monde. wan ñu vidéo yi. je xëy na ñu ngi ñuy diwoo c'est ça en fait. ak a bëri fii Sénégal ay kilifa yu kilifa kilifa. ñii daal ñii daal fi mu ne ñu ngi leen di critiquer lu ne. fële ca fële ca Côte d'Ivoire ñu seetaan ko ñëwaat ci pont bi. léegi El Hadj waxtu bi jot na am na benn video mooy mbaam bi dugg ci cimetière yi noonu euh, créé buzz ci TikTok. ah boobu gisuma ko. mi ngi nii lii. waaw soo bëggee ñu bàyyi ba suba ñu gën ko détaillé ndaxte lii yéem na daal yéeme na ñii ne mbaam bi dafa dox ba dugg ñii ne mbaam bi ay yëfi mystique la. xam nga Sénégal mbaam bi jaar. ñëpp moom la ñuy laajte question mais lu ci waay di wax rek na ko xam. voilà ñun nag dañoo tàmm ci mbaadu ci luñ dul fekkee. après ñu ne ay jullit la ñuy àjjana la ñu jëm. Uh-huh. alors que duñu wax mukk lu ñu leer. mais lii fekkee wu leen bu leen ci sori. voilà voilà kenn xamul mbaamu lan la. mais nag mujj <laughs> mujj nañ ko génne. on ne sait jamais. mais on ne jamais. en tout cas vidéo boo xamante ne actuellement ci week-end bi mi ngi tourné. waay ñëpp ciy ñëw dinañ ko topp. Euh, ba fan la mujjee suba ñu ñëw ko détaillé. waaw nañ ci ñëw suba. voilà et puis et puis bul fàtte Fallou Dieng jox nañ ko trophée Amérique. ah oui gis naa gis naa trophée oui Fallou Dieng vous mais <laughs> loolu dafa neex. mais Fallou. Fallou Dieng vous souhaite une bonne journée. ça c'est ça c'est exceptionnel. joie de vivre Fallou vraiment <laughs> mention spéciale quoi. Fallou yàlla yàlla guddal fanam. benn grand nee na jëlee kat nga rek taay Fallou Dieng a jël. <laughs> mais Fallou moom mi ngi mi ngi def tournée américaine. non ba pare li gën a grave mooy. Uh-huh. Fallou Dieng prépare son retour. ah oui ci esplanade bu grand théâtre bi. le retour de Fallou. ah écoute. biri biri dawal coow. Eh. weex bët. coléré non je les nostalgiques vont venir ah qu'est-ce que vous pensez. incha allah bi Vigie moo ko moom. ah non non euh, les anciens aussi ah ci dëkk bi la ñu bokk. ah oui bien sûr bah oui on le félicite moom Fallou di ko féliciter Fallou Dieng. mu ngi euh, Amérique man damay seetaan statut de dama koy. trophée de reconnaissance. Uh-huh. waaw trophée de reconnaissance. macha allah et puis Malick Thiandoum tu disais tout de suite. 18 uh-huh. safar bi pour les détenus de Thiès. Uh-huh. et de Dakar affiche baa ngi noonu. Euh, barkeelu bi ku ci mën a jàpp rek boo ci jàppee. Mm-hmm. dina ko yóbbul ñi ne ci kaso bu nekk Thiès. numéro téléphone bi 77 la. 576. 80 10. Seydi Aj Malick la ñu ko tuddee. Uh-huh. Tidiane la. Uh-huh. waaye moom it day safar te mook détenu yi ñooy safarandoo incha allah. loolooy Sénégal. voilà jaajëf El Hadj mu nga kontaan nañu bale. jaajëf El Hadj ba suba incha allah incha allah euh, li ci des nag xam naa dama koy bàyyi dama koy leb ba suba euh, prévoir oon naa tegal leen dem ba gisee bu bees bi xam nga génne na clip euh, waaye naa ci ñëw suba waxtaan bee tax waaye clip bi Pape Samba Thiam am nga ko prévoir oon naa itam indi ay détails ci soirée Viviane bi passé samedi dernier la woon Iris waaye vendredi